jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di 5M TV li gën a fës ci bopp xabaar rek dañ koy door rek tàggaloo bi nga xamante ne rek daal dinay am ca bopp APR ci diggante kii di ma Mbaye Niang ak Amadou Ba buñ leen sëy jàpp nañ ne sëy ba daal dinay tas ginnaaw déclaration bi nga xamante ne kii di Mame Mbaye Niang dina koy def ca plateau TFM moom jëw nañ bu ñu dénk wàllum tourisme ma mbay Niang la mu daal ma mbay Niang la mu daal di xam ne rek moo di ne nag investissement bi nga xamante ne moom lañ doon def Amadou Ba niki alxames bi ñu génn yëgu ko tiinu ko ndax nag la mu daal di xam ne rek ginnaaw bu ñu ko laajee ci moomu lee mbir ne na am na relation boo xamante ne bu neex la ak diggante ak ministre yëpp waaye nag candidature kii di Amadou Ba daal ah, moom àndu ci tey àndu ci ëllëg mbir mu mel mu daal di dëggal moom Mame Mbaye Niang moo di ne nag ma nga jàppale président Macky Sall waaye bi nga xamante ne rek def na ko nag ñee choisir kii di Amadou Ba ak troisième mandat bi nag àndu ci tey àndu ci ëllëg ba tey rek la mu daal di xam ne ci micro Pape Ngagne ñaay moo di ne nag jàppalewul Amadou Ba tey jàppalewul ko ëllëg ndax nag kii di Macky Macky Sall daal mën na ko jàppale waaye bu fekkee nag kii di candidature Amadou Ba jàppale wu ko raison yi nga xamante ne rek moo waral nag mu bañ ne du ko jàppale naam sax daal dinañ ko ci laaj waaye nag Mame Mbaye Niang ci jëm boppam daal na tànneef bi nga eh, Ba nag neexu ko tey eh, neexu ko ëllëg mu daal ci yokk ne candidature Amadou Ba moom kontewul sax ndax moom ci jëmmi boppam nag ba muy dugg ko ci dugal waaye nag nekkul ay théorie kott rek moom moo koy dugal eh, ci politique ndax Amadou Ba ak Souleymane Jules Diop ak ñoom ñëpp nag nekkoon nañ ca eh, lu yàgg-yàgg ba tey rek la mu daal di xamle moom may maam mbay ñaax moo dina nag bu fekkee dañoo am problème finance rek wala présence yi nga xamante ne rek moom moo ñeel engagement jamono ji kii di defatu Amadou Ba nag nañ ko xaar rek ci atum 2024 di kàddu yi nga xamante ne rek kii di maam mbay ñaax daal dina ko yëkkati foofa ci émission bi nga xamante ne rek kii di Papa Ngagne Ndiaye moo ko fa daal dalaloon ca TFM jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification ngir amaat yeneen i info